yëg ne du minute yi wala heure yi wala guddaay bi moo ci am solo waaye yéene ji ak façon bi nga koy defee loolu la yàlla di fay ki nga xam ne moo woor mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu amaan nañ mbégte lool ci dellu si waat ak ci seen jotaayu ndaw ñi ak koor gi jotaay bi nga xam ne laaj lay doon ak ay tontu laaj yi di bàyyikoo ci yéen ndaw ñi ñu ñëw ñu koy jéem a waxtaane ñun ak yéen bëgg lool ci yi nga xam ne ñu ngi koy jot a jot bëgg lool itam ci ni ngeen réagiré ci yi nga xamante ne moo jot a agsi ci yéen gannaaw bi ñu leen nuyoo laaj bi nga xam ne moo bàyyikoo ci yéen tey ñëw ci ñun day laaj ne ki nga xam ne dafa woor waaye day taamu ji dëkk boo xam ne gën naa sedd wala dëkk boo xam ne temps ba gën na faa gàtt ndax ku ne xam ne ne àdduna ni jant bi di fenkee ak ni muy sooyee am na dëkk yoo xam ne daanaka bu ñuy dog seen koor bu fa jant bi di so yow day fekk boo nekkoon ci suñu réew yi mën naa am yaa ngi door a xaajal am ñoo xam ne it ñooñu gën a gudd la fuuf noonu la yàlla mooñe àdduna ki nga xam ne yàlla dogal na muy dund ci dëkk yooyu loolu sansam la su fekkee mën nañ koo tudde noonu ndax yàlla moom temps bu gudd bi itteelu ko temps bu gàtt bi itteelu ko li ko yitteel mooy yéene ji nit ki am bi muy woor ndax li lay firndeel loolu bu dog demoon ba jot nga ne man kat damaa sawar moo tax damay dollil yàlla yeneen 30 minutes yàlla ne la bëgguma man li ma bëgg rek mooy bi mu agsee fi dog di jot li ma la sant mooy nga dog ak loo ragal ak loo ñeme-ñeme xiif ak loo sawar-sawar dogal sa koor ki nga xam ne dafa jóg dem di taamu ji loolu ñàkk xam moo ko waral waaye jëru ko woon ndax tiyaaba yu baree baree bari ñu ngi koy am ci diiru bëccëg gi muy woor nga xam ne bu xamoon ni mu toll yaakaar naa sax day taamu fu gën a gudd mu dem woori fa bu amee ay moyen nag ba dagg biyam dem ci réew yooyu woore ji fa lam def araamut kenn du ko ci wax dara moom moo bëgg am temps bu gàtt connexion bi muy am digganteem ak mu dem wuti foo xam ne temps ba dafaa gàtt mu def ko yàlla dana ko fay lu tolloog temps boobu yow mi nga xam ne da ngay woor fu gudd wala fu tàng wala fu yàgg sa pas-pas bi nga am itam yàlla dina la ko fay kon loolu rek mooy li nga xam ne moo ci am solo koor gaa ngi noonu jamonoy jaamu yàlla la nañ ci góorgóorlu yëg ne du wala guddaay bi moo ci am solo waaye yéene ji ak façon bi nga koy defee loolu la yàlla di fay ki nga xam ne moo woor mbokk yi cant ngërëm ñeel na leen ba ëllëg ak jàmm incha allah